sponsoré pour sa famille man duma ma jékki di waxantu lépp lu may wax dama ci wut information yu leer léegi nag bala maa ñëw ci audio yi damay ñëw ci diggante Malick Naar ak ki nga xam ne moom mooy ami Amina Poté ak gelu tubaabam bi Malick dafa am benn gelu tubaab gelu tubaab bi moo nekk nii ñoom ñaar ñoo doon dund def nan six am nan benn doom bu góor déglu leen ma de six lan def ñoom ñaar am nan benn doom bu góor waaye Malick ñu bari ñi ngi naan Malick tubaab bi moo ko may ay kayit du dëgg de Malick amaat na beneen tubaab la amoon avant kii kooku moo ko may ay kayit moom Malick dafa dëkkoon ak gel bi déglu leen ma bu baax Malick Naar dafa dëkkoon ak gel bi moo nekk nii ma affiché moo nekk nii ma affiché léegi six ans la ñu def ñoom ñaar six ans ñu am benn doom bu góor Malick ba mu takkee Amina Poté ba pare ba mu ko takkee ban def lune de miel la xawma lune de de banana def seeni affaire ba teg ba def lépp yaakaar ne ñoom ñoo rey gaynde gi dund lu nice dund lu neex Sénégal Malick Naar dafa bëri ay noon Amina Poté dafa bëri ay noon dafa am ñoo xam ne Amina Poté li mu am ci lu baax bu sa buñ sañoon lu bon lay doon Amina Poté lu mu am ci lu baax bu nu sañoon Amina ci jooy lay dëkk ak tas ànd na toj data ndayam delloo ko ci ndayam bala maa woo Sonatel ñu installé leen ba ma eggale sama sama kii maa ngi ci dix bu ma kenn yab du ma moroomu kenn ci réew damay ñëw ci diggante Malick Naar ak ki nga xam ne moom mooy Amina Poté ak gelu tubaabam bi Malick dafa am benn gelu tubaab gelu tubaab bi moo nekk ni ñoom ñaar ñoo doon dund def nañ six am nañ benn doom bu góor déglu leen ma de six ans lañ def ñoom ñaar am nañ benn doom bu góor waaye Malick ñu bëri ñi ngi naan Malick tubaab bi moo ko may ay kayit du dëgg de Malick amaat na beneen tubaab la amoon avant kii kooku moo ko may ay kayit moom Malick dafa dëkkoon ak gel bi déglu leen ma bu baax Malick Naar dafa dëkkoon ak gel bi moo nekk nii ma affiché moo nekk nii ma affiché léegi six lañu def ñoom ñaar six ans ñu am benn doom bu góor Malick ba mu takkee Amina Poté ba pare ba mu ko takkee ban def lune de miel la xawma lune de de def seeni affaire ba teg ba def lépp yaakaar ne ñoom ñoo rey gaynde gi dund lu nice dund lu neex senegal Malick Nar dafa bëri ay noon Amina Poté dafa bëri ay noon dafa am ñoo xam ne Amina Poté li mu am ci lu baax bu sa bu sa ñoon lu bon lay doon Amina Poté lu mu am ci lu baax bu nu sañoon Amina ci jooy lay dëkk ak tas di takk ju koy takk muy tas ju koy takk muy tas loolu lañ yéene Amina déglu leen bu baax Malick c'est vrai que ba muy takk Amina Poté ki may yone demande na toj data ndayam delloo ko ci refal ndayam bala maa woo Sonatel ñu installé leen ba fa téléphone bi ma eggale sama sama kii maa ngi ci dix mille personne bu ma kenn yab du ma moroomu kenn ci réew mi ba muy takk ki nga xamante si ni moom mooy tubaab bi takk ko de dama bëgg ñu bari dañuy jaawale naan jabaram la du jabaram de gelam la takk ko ci kayit de déedéet gelam la ñu am benn doom bu góor dama bëgg ngeen déglu li may wax gelam la ñu am benn doom bu góor déedéet mais nag ba muy takk aminaa pote moom yëgalul ko mu ne ko damay takk jabar léegi Malick Naar nag dafa am ñu kon na woon bëgg ay jigéen ñu bari ku ci mel ne xadiloo ndaama mi ngi nii ma avisé kii mooy xadiloo ndaama xaritu Wally Ballago sek ki lépp Wally Ballago Seck la moom lay way xadiloo ndaama lépp nii loo gees gees gees waa walay xadiloo ndaam xadiloo ndaama mi lu ji njaag moom la dama ne woon dama koy saaga ay ndey mais bëgg gi mu bëgg waali sek bëgg gi mu bëgg faramaareen yi laa ne naa ko bañ a saaga ay ndey te wax li mu def léegi Malick ba muy takk Amina Poté yëgalu ko tubaab bi mais ba ñu defee seeni photo def seeni vidéo kii di xadiloo ndaama dafa noboon Malick Amina Poté jëkkëram mais Malick nobu ko woon lépp la daan defal Malick ñoom ñaar ñuy ànd fu ne seq seq lu ne moom ak ay xaritam léegi nag xadiloo ndaama moo jël vidéo yi enregistré ko envoyé photo lépp gelu Malick bii nii maanaam bu yëgee ne takk nan Amina Poté maanaam Malick am na beneen jabar bu tudd Amina Poté wax ko détail yëpp xadiloo ndaama mii la kii maa fi xadiloo ndaama mii moo jël vidéo yi ak photo yi yónnee ko gelu Malick bi nekk Amérique léegi kooku ba mu ko yëgee la woo Malick téléphone ba muy wax ak Malick vidéo bi ku ko génnee ngeen ba nga xam xam ngen kenn moo génnee vidéo bi rakku ndaw si maanaam gelu Malick bi rakkam moo nekkoon ci biir oto bi ak Malick Malick di wax ak magam muy gelam bi muy génnal mu di ko vidéo léegi lim ko wax ci vidéo bi neer na dama def erreur ci mariage bi ma marie ak kii nga xam ne moom mooy Amina Poté mais yow bëgg naa nga ñëwaat ci man yow sama yaayu doom parce que Malick li tax mu doon neexal gel bi dafa yor ay bagaasam ci biir kër gel bi yor na fa ay jamaawam ci ay seen yor na fa ay seenu oram yor na fi ay quelques biens ci kër ndaw si mais munta dem ci kër ndaw si munta tamit gis ndaw si Malick munta gis doomam doomam gi mu am gel bi ba tey Malick munu koo teg bët parce que problème bi moo ko waral te gis ngeen doom ni mu mel ci xol gis ngeen doom ni mu mel ci xol Malick ba tey nii munta jot ci doom ji pour gis ko ba mu jógee Sénégal ba tey parce que ñoom xadiloo ak ñeneen ñi ñoo kalaate li nga xamante si ni mooy diggante ak gelam bi mais Malick mi ngi focus pour leeralal leen nag gel bi dafa lijjanti sama numéro ba am ko yónnee ma ay audio moom laa dugal nii léegi ma ngi koy làkk ay angale nag Malick moo ciy lakk ay angale ojo yi dugal naa ko sama biir paas Malick moo ciy waxaat ba tey audio yooyu yëpp ay sénégalais ñoo nekk ci ginnaaw gel bi di ko ko def loo mu koy génnee ñu ci mel na ay xadiloo ndaama pour yàqan diggante Amina Poté ak kii nga xam ne moom mooy Malick Naar jot naa Amina Poté tey nee na ma Adamo du ma tas tey du ma tas suba duma tas gannaaw suba Adamo sama jëkkër dama ko bëgg Adamo Malick dama koo nopp Adamo Malick sama xol la Adamo ñu bari bu ma sañoon ma tas ak Malick mais kii damay sëy ba dee lii la ma Amina Poté wax Malick tegal ma ci lan dama bëgg sama jabar mooy sama yaay mooy sama lëb moom lay taataan moom lay àndal lu mu wax laa wax lu mu waxul waxuma ko Malick mooy wax de nee na dafa bëgg Amina Poté Amina neen du ko bëgg ñoom ñaar ñëpp laa jot téléphone. kon journaliste yi bind ak ñi nga xam ne ñoom ñooy wax nanoo xam li ñuy wax ñaar ñii tasuñu danoo bëggante bien vrai que nag. problème am na mais danoo bëggante. dëgg doon may Amina damay gumba taxlu dee ci sëy bi. dëgg la Amina Amina sëykat la daa ñu koy yàqal. dëgg la ñoo war bàyyi yàq bi ñuy yàqalante si jëmi mhm. am na jëkkër mu ngi sëy rek bë nga yow amagoo jëkkër il nga yàq sëyam pour lan loo si gagné. dëgg la. bëgg a yàq avenir du jàmbur pour lan. Amina mhm. taalibe Serigne Saliou la lu baax lay am. Sénégalais yëpp a ngi ci ginnaawam ñu duñ ko yàq. dëgg la Adamo merci beaucoup may gàttal am na contentement nday xadi bisimilah salaamaaleykum ko lan la luy problème bu sénégalais yi tamit nañu waxante dëgg. dëgg la. ami naa daal ñun moom la ñuy waxal ami naa na dégg lii ami naa na toog na jàpp na sëy na muñ nañu xool ñu ñi nga xam ne dañoo bëgg ami naa Poté man de barke Sëñ Fallou dama koo bëgg. Mhm. dama bëgg Amina Poté ndax sëñ Saaliw mi mu bëgg sama yaay bëgg sëñ Saaliw moo tax ma bëgg Amina Poté Amina Poté jour bi ko Malick Naar di taqal bàgg bi muy di muy recevoir bàggam bi damaa toog fii ci sama séjaada maa ngi Espagne julli di ko ñaanal pour yàlla bàyyi ko ci sëy bi nañu yàlla dimbale rus ñu bàyyi ko ci sëy bi bu ko kenn génne ci sëy bi nañ nit ñi nañ nit ñi nañ defar seen xol yi aadam moo dëgg la maa ngi lay ziar Adamo ngir yàlla boo dee laay fale ci sama papa Macky Sall dee ma jël damay nekk ci suuf damay tapoter damay déglu man Macky Sall rek laay nooyee Adamo jërëjëf incha allah Adamo jërëjëf Adamo merci beaucoup doom bu mami bisimilah tey du bisu Macky Sall doom bu mami bisimilah doom bu mami Cobra waaw defaral sa écoute bi di ñël sa akas kii bu dee si mu ko jënde rocc ko casque yi xaaral nga mel ne ku jógee Guinée Mamy Lof bisimilah. Adamo xaaral Adamo. waaw Adamo yow daal information yi inf ku képp ku bëgg information daal na la déglu say live. li nga daal lu leer nga fi tegoo fi dara loo xamante ne lii leerul waaw naa Poté nag moom ñu ngi koy ñaanal na jàpp sëyam bi bu baax a mhm. baax a baax yàlla jubala ko boroom këram wax dëgg yàlla mu bañ déglu waxu noonu yi ñu ñëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla baax na yàlla na mhm. doon bi doon dernier sëyam incha allahu bi ci kàttanu yàlla dëgg la jërëjëf kontaan nañu ok Bébé ñëwal bismillah ak moo nu mu demee xam nga lan la ñaan mu def demande danga xam mu def demande ak gisuma demande am waaw lay dégg Et je ne sais pas la dernière fois, je n'ai pas là pour, te la faire l'argument, mais il faut qu'on dise la vérité. J'ai besoin de quelque chose d'information vers toi. La dernière fois, dama nekk Sénégalais ku ni yow. C'est parce que nous tous les hmm. musuma saaga kenn sama àdduna. waaw. la dernière fois j'ai vu une vidéo qui circule au monde. Hmm. yow nee na ñun ñëpp ay Sénégalais lañu. ñun dañuy jënd suñu paas